Bantamba ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte ñëwaat ci émission làmb xam ngeen ni dugg nañu ci weer woo xamante ne nii e weeru avril lañ koy wax te weeru avril séentu woon nañu ci mbokki Bantamba que làmb dina ci am jéego jéego bi li taxoon ñu njort ko ci mooy lii woon ci réew mi fan yii yëpp mu nekkoon tànn tànn boo xamante ni nii njiitu réew lañu waroon a tànn yàlla def na ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall doon ñeenteelu président de la république bu Sénégal mu doon xew-xew bu mag boo xamante ne ni adduna bi yëpp gis nañu ni nga xamante ni noonu la tëddee yaakaar naa ni le Sénégal fait partie les des pays les plus démocratiques au monde loolu kenn dootu ko werante ndaxte ni ni tànne njiitu réew ca Amérique ca France ca Allemagne ci réew yi ñuy woowee réewu démocratie yaakaar naa ne Sénégal noonu la mel tey jii war nañ ko fa di fa mën di ko fa tudd et ba na ñi ngi ndokkeel ñi ngi sargal le président Abdoulaye Wade et ci nongu gi mu nongu ndaxte Afrique loolu barewu fi woon yenn saa yi da nga daan gañe nit mu ne kenn gañewuma te tey jii yaakaar naa ne Sénégal wane na boppam ñun ndokkeel bu baax le président Macky Sall di ko ñaanal yàlla na am ndam ci liggéey bi mu war a liggéeyal Sénégal te xam ni ndaw ñaa ngi fi ñun nag wàllu wi nu féete làmb la te lu toll ci juróomi junni juróom benni junni ci ndaw yoo xamante ni nii ñi ngi fi te yaakaaruñu dara lu dul bëri loolu na ci président Macky Sall bàyyi xel mbokk yi àllarba xam ngeen ni Ndefleng moo aye fii ci Ndakaaru Ndefleng jël drapeau Mansour Kama baaxoo ko at mu jot ñeenti fan ci weeru avril ñu def ko sargale ko Mansour Kama ki mbokkam ak taxawaay bi nga xam ne moom la am ci askan bi rawatina askanu séeréer cay maamam la woon ba tey jii mu koy dox te amul dara loo xamante ni nii bana ko ci ba tax na Mbañik Njaay ak Ndefleng gi mu àndal ñooñu ñëpp ñu ne nag ñeenti fan ci weeru avril ña nga ca yi Iba Mar Diop ca terrain bu mag ba nan ka daan defee at mu jot renet ñu fas yéene cee dikkaat te teg nañ ci lu toll ci ñetti million te kiy gàddu ndam li dina fa am million ak lu toll ci juróom benn ba juróom-ñetti téeméer ci junni yaakaar naa ni loolu am na solo kon làmb jooju mi ngi foofu tey xam ngeen ni ëllëg cees lan jëm àllarba xam ngeen ni Thiès làmb ju mag ma nga fa diggante Forza ak xale ya nga xam ne fa bara bëre yëpp ñu leen fay séentu mu di tournoi cliff bi nga xamante ne nii Luc Nicolas tàmbale na ko tey la fay jeexal coow la mooy diggante Balla Gaye ak mu doon seen jàkkaarloo bu njëkk mbokk yi kon dinañu ñëw it stade Iba Mar Diop xam ngeen ni Moustapha Gueye li mu def rëy na Moustapha Gueye fës na yéene mu keroog mu wone làmb ju neex diggante Malal ak Cheikhou Diène ak lafa feeñ ci xale. lafa fa bëre la xew ci làmb la fa xew ci événement la xew ci lépp loo xamante jëm na ci cosaan yaakaar naa ne loolu lépp di dinañ ko xool ci biir Bantamba loolu yëpp mi ngi ci. mbokk yi bu soobee yàlla bu leen fàtte na xam ngeen ni le 6 Pape Abdou Fall moom it ba Iba Mar Diop semi nocturne la fa woote mu doon diggante Mame Balla ak Papis Général ak xale yi nga xamante ñoo ci war a bëri yëpp loolu stade ba maar Diop la bu leen fàtte it bu soobee yàlla neuf ñu nga jëm stade Demba Diop Aziz Ndiaye taxawal fa Boy Niang ak Double Less numéro 2 loolu mooy làmb yi nga xamante ne nii bu soobee yàlla 2STV dina taxaw ci won leen ko lépp loo xam ne war na faa am di ngeen ko yëg waaye mbokk yi balaa ñoo dem ci diggante Mamballa ak Papi Général naka la ñu waajalee seen combat dinañ ñëw ci lépp loo xam jëm na ci làmb waaye nañ leen dem stade Iba Mar Diop xooli Moustapha Gueye mi tëggoon làmb ju mag ji tuddee ko ki nga xamante ne nii e, tëggoon làmb ju mag ji mu di làmb ju mag joo xam ne Sénégal gépp a ko bokk yaakaar naa diggante Cheikhou Diène ak Malal Ndiaye nañ leen dem Iba Mar Diop Bantamba ak 2STV